La santé est une affaire de tous. Action, réaction. De l'idée à l'acte. Wartouti de Le mouvement Ribo Samagor en collaboration avec les ICP de la commune de Ribo Escar organise une journée don de sang le jeudi 1er octobre 2020 à Ribo. Ribo Escale, une jeunesse unie, un esprit de solidarité pour un développement commun. waxtu wi jot na la jeunesse de la commune de Ribo Escale moo woote journée don de sang maye deret ensemble pour sauver de vies eskay li moo waral le mouvement Ribo sama gox di woo waa département bu Koungheul rawatina waa commune bu Ribo Escale cey waay don de sang buy am le jeudi 1er octobre 2020 nga ni la jeunesse de Ribo yemuñu kese ci don de sang nga lan Colobane fa amal également set setal en collaboration avec l'ASC Jamono de Ribo des masques seront offerts aux populations dans le cadre de la protection contre la Covid-19 bilaay walaay ah mbokk yi yéen a ko dégg noonu journée maye deret organisée par le mouvement Ribo Sama Gox en collaboration avec les ICP de la commune programme bi nag nii lay demee à partir de 9 heures démarrage don de sang suñu fa paree dem directement ci set setal boobu voilà mesdames et messieurs une seule date à retenir le jeudi 1er octobre 2020 à Ribo Escale ak mouvement Ribo Sama Gox le développement est bien possible waaw waaw